de bâtir un consensus fort sur le code électoral et qui aura permis pour la première fois au Sénégal d'élire les maires au suffrage universel direct ainsi que les présidents de conseils départementaux. Je dois également rappeler les avancées

une avancée pour l'opposition, mais surtout une avancée pour notre démocratie. Je voudrais donc saluer tous les Sénégalais qui se sont levés très tôt ce matin pour exercer le droit de vote et je souhaite que le vote se passe partout dans le calme et la sérénité, étant entendu que notre pays a de tout le temps organiser des élections justes, libres, transparentes et démocratiques. Donc tout doit se faire dans le calme et la sérénité et que les meilleurs gagnent au soir de ce scrutin. mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sangam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi amaat mbégte ñëwaat ànd ak soxna Mariam ngir ñëw wote si fii ci centre de vote Thierno Mamadou Sall bés bi dafay bés bu màgg ci suñu démocratie damay fàttali rek ne élection yi dàqoon nañ ko ñaari yoon ah li ko waraloon it bokkoon na ci dialogue politique bi xam ni woote woon naa ko lu ëpp ci opposition bi ñu tontu wuyu ci dialogue boobu moo jur tey élection yi ñuy def ci xar kanam bu bees bi mu am muy maire bi ngeen war a tànn xam ngeen ko mooy ki jiite liste majoritaire lu ëpp ay voix moom la mooy nekk automatiquement maire commune wala maire ville naka noonu ci département bi ki jiite tête de bi mooy nekk automatiquement président de conseil départemental loolu nag ay changement yu bees la ci suñu code électoral waaye ñun yaataloon nañu ba ci demande opposition ñu yokk proportion bi proportionnel xam ngeen cinquante pour cent la woon proportionnel cinquante pour cent majoritaire dialogue politique bi joxe léegi nañu may proportionnel bi cinquante cinq pour cent bàyyi quarante cinq pour cent pour la liste majoritaire loolu yëpp nag day wane rek démocratie Sénégal bi toll ah, ba tax na ñëpp lay sant gërëm ñëpp ah, di rafetlu suñu démocratie toll tey ci biir Afrique te am itam njeextal te ne bu ci yàlla àndee vote bi danañ ko def ci jàmm ak salaam ni ma war a mel ndax Sénégal moom ku ne xam na ne code électoral am fichier électoral am processus électoral am amul kon na ñëpp woote si jàmm ñu pare si jàmm